Bassirou Diomaye Faye xoolal image bi euh, si ginnaaw écran bi lan ngay gis gaynde ak photo Bassirou Diomaye Faye nga emblème mu Sénégal gaynde la d'accord et dans un instant le président Bassirou Diomaye et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire entrer avant celle du cinquième président de la République du Sénégal. waaw gan yi ñooy njëkk dem dugg ci salle bi installé wu ba pare gis nañu ne euh, daal yenn ci membre conseil constitutionnel génn nañu ngi dem nag jëli euh, le euh, nouveau président de la République léegi nag gan yi bu ñu duggee ci sal ba installé wu si ngeen di gis nag le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko mooy dugg si noonu ci ci salle bi. bunge euh, gan yi ba ñu toog su ko defee nag euh, Bassirou Diomaye fay ànd ak euh, membre conseil constitutionnel ngir dem nag toog ci place ba ñu ko gardeel kon ngeen gis noonu ne njiitu réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ak représentant yenn réew yi nga xam ñoom ñoo ñëw euh, ñoom ñoo dugg si noonu euh, ñooy dem toog euh, si seen place après le président Ousmane Sonko tamit toog ci place am léegi nag waa conseil constitutionnel yi nga xam ñoo ngi ñuy génn ngir jëli bassil Diomaye Faye ñooy ànd ak moom comme ça mu dugg nag toog ci place bi ñu ko gardeel Ibrahima. président Bassirou Diomaye Faye di toog jàkkaarloo ak euh, juge yi suñ ko joxe kàddu gi pour mu prêter serment après muy loolu alors ñaari soxnaam yaa ngoog saal baa ngi tàccu Excellence, Monsieur le chef délégation des pays amis, li ñuy xaar mi voilà du yàgg. mooy nag premier président bu am ñaari jabar ci Sénégal loolu aussi. Ah, ah. mais kan mooy première dame moo gën loolu moom euh, mënu ma ci wax. <laughs> Euh, mooy président bu gën a nekk ndaw. Mm. waaye mooy président bu njëkk am. ñaari soxna. Mm. c'est un parce que un responsable c'est tout hein et looy xaar si am ñaari soxna Ibrahima. bon loolu yëpp euh, moom. le président Diomaye moo gën a nekk responsable Ibrahima bul daw question bi. du yàgg mu génn ñu ngi koy xaar. dama ne loolu yëpp ci tradition Sénégal la am benn wala ñaar wala ñett ñetti soxna ku mu saf rek euh, nga defee ko noonu kon nag euh, dans un instant en direct sur la RTS l'entrée du cinquième président de la République du Sénégal. voyez, vous avez vu le président de la Mauritanie, euh, Mohamed Oulgazouani, Adama Barrow de la Gambie, Amaro Embalo